yaakaar ni kii dafa ragal wala faible la moo tax fi dess nagn ko xam wala ñu bañ ko xam nangu nañ ko wala wat nanguwuñu ko di fi des mooy jàkkaarloo Macky Sall xeex ak moom est-ce que ngeen pour ça est-ce que vous pour ça yéen xam naa ni pare ngeen maa ngi waxtaan ak Sénégal yépp à travers vous parce que ñi ñaa ngi seetaan en direct li may wax dama ko jaare ci yéen té bu xeex bi jotee nak amul góor amul jigen buñ ko defee fii amul mag amul ndaw yalla xam potentiel biñu am xaju ci Macky Sall et vous le savez vous tous waye bu ci ragal duggé rek Macky Sall day ko def li muy def té kenn du ci mucc ndax ma ngay japp li tëj tey on a plus de 700 prisonniers politiques est-ce que lolu jaarul kon ñima ma bëgg a wax waa Ziguinchor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

amatuñu lu ñuy prouver na ngeen lever les barrières wayé mun ngeen bàyyi dispositif yi mu dess yoon bi mun ngeen bàyyi auto di jall wayé dispositif de surveillance bi nga xamné ne def nañ ko mom mën na des fii bu ñu paree loolu ñun ay patriotes lañu liñu gëm moy bëgg sa réew bu ñu paree loolu na ngeen nettoyer ba mu set wicc.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 donc à partir de Ziguinchor léegi ñii dinañ ma génneel itinéraire bi mais dëkk yu bëri ci Casamance lañ fa jaar ba génnee Sédhiou génnee Kolda Vélingara Tambacounda yéegaat Koumpentoum ba Koungheul Kaffrine génnee Kaolack vous egg Ndakaaru Je suis la caravane de la liberté. parce que nous population de Ziguinchor. Malgré depuis que je suis maire de cette ville. Macky Sall musuma may pour ma maire président de conseil départemental yi ngi tukki signé accord man mel Ousmane Sonko un an et demi de mairie m'a voyager parce que Macky Sall ma da ngeen nangul mako sen poste ba ñoom ay projet ba lancer projet yi ñu ne def projet yi ci ci wax wax ndax Sénégal